respect

maytu ak si maytu bamba doy na set laqu waay te doy na set weeru waay si maytu weeru ak si maytu bamba doy na set laqu waay te doy na samba weeru waay ci saytu ak si maytu bamba doy na set waay sa doy na sëg weeru waay si saytu ak ci moytu